jërëjëf mbokk internet yu dakaar Buzz ba tey ni ma leen ko waxee rek ñu ngi fii ci kër mbay Fall li ñu fii ni mooy li leen di toppal li nga xam ne mooy bisu këccëb bi nga xam ne ba woon sax tey mais démb léegi ñu ngi fi bi gillee mi wàccee ba tudd mi ba heure bi nga xam ne daanaka ñu ngi ci cappaandaw li tey ma toog nag ak ki nga xam ne nag mën naa ne buñ ko dégg si bariwul muy way juróom di yaayam nga xam ne moom laa toogal ni sama ndejoor toog ak ndey mbili léegi sama càmmoñ war a weccoo ay kàddu nag tey ay kaddu cant ak kàddu soññee rek tey ay kàddu mbégte tey ñu tàmbalee ci wéy juróom bi nga xam ne lépp moom la moo toog ci naaj ba kër gi fekk ko fi di ñaan yàlla na fekke lu bare bare bare bare ci barke Yonent bi yaay ba maa lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Maymuna Kase. Ah? Maymuna Kase. Maymuna Kase yow yaay wéyjuru Buuse. waaw maay waajuram. tey eh, loo may wax ci moom tey sa doom. ba ma sant yàlla julli ci Yonent bi. di sant sama ñaari waajur. di sant bappaam. ndax lépp papaam la feccum nit bu neexee nday jaay jàpp ca mbagg ya papaam rek moo ma jàppale jàppale ma ci xale yi dafa ne xale yi bugguma seen dara loo leen am jox ko jox leen ko seen nday loo leen am jox leen ko seen yaay yaay loo leen ko jox ci biir kër gi la koy def ak ci man kon bugguma seen dara loo am jox ko seen yaay ku ci jox sa yaay ku ci bëgg sa yaay danga ko gis danga tekki barke sëñ Touba kon seen papa moom moom lépp moom lépp moom la buuse nag moom ak rakkam yëpp nag laa yemale rakkam yëpp noonu la ñu mel ci man dañ yërëm nañ ma bëgg nañ ma yiir nañ ma ba ci ib mu gën a ndaw lu mu yor jox ma ko bu ñu gisee ma noppi ñu ne moom la da ngaa banque ma ne pat ñu génne jox ma ñoom ñëpp te ci buuse mii lañ ko gisee dañuy rawanteeg moom Modou nag moom dama koy bàyyi yàlla ndax namuma dara jooyuma dara macha allah nu ma mel tamit moom la bu ma gis bu gisee sax ma xaw a mer sax mu ne xoolal muy comédien boo demee kat xaalis sa bëggati daal di yëkkati wañ jox ma li muy def ci euh, vidéo yi di wane li muy def suuf ci suuf mook ko ëpp moo ko ëpp billaahi loo koy ñaanal ci bisam bi nga xam ne tey àdduna bee ko wuy si macha allah. maa ngi koy ñaanal ci bisam bii yal na ko jig yal na jig laayam dund ba doomam ji ma koy defal di ko yóbbu mag di ko teral ci barke Seydina xam ak soxnaam ak ñépp di ñaanal xaritam yëpp nitam yëpp maa ngi leen di ñaanal. laataa xaritam yi bi nga déggee tey nee na tëf doom tuddee wéjuram lan la def ci yow. Eh, li mu def ci man rëy na. li mu def ci man rëy na ndax kii fayagul sax papaam ni mu ko defal nii sax des na lu bari papaam baax na papaam laabir na papaam bëgg na ñëpp ñëpp la yemale doomam ak doomu jàmbur la yemale danaan muy mu la lu bari ñëpp lekk danaan xale yi ci koñ bi dee ñëw fii kër gi seen kër la kenn ëppale wu fi dara boo ko tibbalee moom kese mu ne déedéet ñëpp lay woo ñëw lekk day woote woote ba nga ne ko ay waay ni ngay wootee baaxul mu lii baaxul bul wootee ti lii koo woo mu ne suur naa rek da nga koo war a bàyyi mu ne déedéet bu fekkee lekk da nga cee war a lekk xaalis noonu bu la ma gisee rek yaakaar ni daf laa war a jox bu amul lum la jox da lay làqatu barki Seydina Muhammad bu amul lum la jox da lay làqatu loolu ñëpp ma seede wala bu bu buy wax téléphone sax ma ko xaaral ma paas di mun bu ma ko paas ndax amul ma ko may waxi kese amul ma ko may billaahi moom rek la moo dund lu mu yor joxe ko. loolu mën nañ cee seede da ndax xam na ne nitu teraanga la te dara teg ci loxo bi tey. loo koy ñaaxaat loo koy dolli. ba ci xew mii bi moo bi amee doom la jël yónnee di yónnee ma ne ko yow maam kese nga looy yónnee moo di yónnee xaas nga koy yónnee xaas mu ne ma man lu ma war laay def. bu Modou yoree ay milliards tamit man bu yoree sama dërëm dina ko ko dimbalee yëkkati xaalis bari jox ko ko ko xam nga ne mën nga ma koo jox nga koy jox Modou mii mën nga ma koo jox Modou mii xam ne nitam yee koy defal lépp moom du ci def dërëm waaw nitam yee koy defal lépp nga di ko jox lii xulóog moom mu ne ma man dama ko koy jox yow lan la moom laa koy dimbale boo amoon looy ñaax moo doon ak loo koy dolli lan lay doon ak loo koy ñaanal. mu koy ñaax mooy mu gën a fonk papaam. gën koo teg fi bëgg naa mu teg ko foo xam ne man sax teguma fa fu kawee kawe di ko ñaanal yàlla lépp lu bëgg ci àdduna yàlla na ko yàlla defal màkk ji mu ma yéene yàlla na ko yàlla àggaleel yéene ko papaam yàlla na ko yàlla ak xam loolu rek mooy rêveem chaque jour mu ne ma yow ren di nga dem barke sa daaw la ne ma dangay dem màkk far yàlla affaire bi am ren mu ne ma di nga dem incha allah yàlla na ko yàlla mottali maa ngi koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a àgg na ko fa yàlla àggal ci barke Seydina Mouhamed bàyyi koog njabootam bàyyi ko soxnaam soxnaam baax na euh, yërëm na ma bëgg na samay mbokk bëgg na samay xarit bëgg na ku ma am bëgg na moom soxnaam mu ñëw jëkkëram jëkkëram day dox ba fajar mu ñëw yoonam nekku ci musuma dégg mu kaas musuma dégg mu xuloo moom ndax leen kon yal na yàlla fal cat di la fal cat képp ku ko bëgg képp ku muy àndal yal na yàlla fal cat jërëjëf mbokk yi kàddu yooyu ngeen dégg mooy kàddu wéjuru Ketchup di kàddu wéjur ak doom Ketchup nag suñu xel dal na ci moom ndax waaw ndeysaan ndeysaan waaw ndeysaan dégg ngeen kàddu yooyu ba tey xarit yi ñooy wax kon sunu yaay dégg ngeen ay kàddoom léegi nag li des mooy kàddu ki nga xam ne mooy kàddu Ketchup mi nga xam ne nag moom laa feggool ndax bu nit ñi doon wax baax na te ay waajuram waxuñu ko ay bokkam waxuñu ko dañuy tiit waaye ñun xam na ni xel ni li waajuram yi wax moom lay dund kon ku yabu def ndànk ci moom te xam ne am na ñaanu waajur macha allah te ñaanu waajur mooy ka këccëb tey ginnaaw ban la soirée soirée di la dokelaat sax laay wax kàddu yi sa waajur génne jëmale ko ci yow tey en tant que doom ak waajur lan la def ci yow. man affaire yi ma sori sax moom lu mu wax wala lam doon wax wax. rek lay wax man li ak ñeme njaboot fonk wéjur ak kootane dimbali ko ka foore ak sa yitte yëpp nga jël ko concentré ku ci ay wéjur loolu la wax ci yow. Euh, Fadel waajur fonk ko dafa am solo waajur nawloo ko dafa am folo waajur bëgg ko dafa am solo ku xeeb sa waajur da nga dem kër jàmbur fekk ku jàpp waajuram ak fukki loxo ak juróom. soo gisee yu bari duma ko bàyyi xel détails yu bari man na ci li ma ne rek lu ma bëgg a wax ci lu baax dama koy wax demee ne toog xam ni am naa ñaanu waajur moo tax dañ naan kuy tagg sa bopp doo juum mais dama ne man kenn ëpp ñaanu waajur ci àddina ndax xale laa waaye yàgg naa cee bay sama waar yàgg xam nan laa war a def ba ñu bëgg ñoom yàgg xam nan laa war a def ba ñuy kontaan di leen bégal ci waxin ci jëfin ci doxalin waajur boo ko xeebee rek xeeb sa bopp te ni ngay xeebee sa bopp day ñaaw ndax boo génnee ci mbedd mi la la ko yàlla di wan samay bagage samay affaire man sama commencement sama life ba fi ma egsi nii amaana yàlla def na ci barke yàlla def na ci jàmm yàlla def na ci salaam ba man sax damay jékki-jékki di tiit sama bopp ndax ni mbir yi di gaawe ni mbir yi di gaawee nag lenn rek la ni mbir di gaawe lenn rek la ñaanam te sama yaay moom sama xarit la moom moom ñëpp ku bëgg dara si man sax moom moo koy jaar boo ko waxul doo ko am. man loolu dama ko koo féetale maanaam ku bëgg dara ci man da koy neexal moom pour nga nga laaj ko pour moom mu ñëw wax ma ko muy mbokkam yeeg ñëpp ku bëgg dara loolu moom mooy symbole bi dang ko koy wax ba pare moom neexal ko pour man ma def ko parce que moom dama ko jiital ci lépp am fu ma ko teg yërëm ko ndax waajur dañ koy yërëm te mu nekk yaay ju neex a yërëm yaay ju baax yaay ju ni may ambiancé nii nu ko raw lay ambiancé xamul stress fu mu toog ci ay moroomam mooy yor ambiance bi fu mu toog ci ay moroomam moo koy yëngal moom lañ mooy star bi comme ni nga may gis nii may critique moom mooy star tuuru famille mooy star bi seen seen mbootaay yi ñuy def mooy star bi bu ñëwul kenn du kenn du dem te loolu yëpp xolam man lu ma mel rek ci moom laa ko jëlee moo dox man xawma lu ñaaw moom bëggul may am problème bëggul may xuloo su ma dugalee estati sax yenn saay comme estati yi may yenn saay nga dugal comme ay Youssou Ndour way mbojo mbojo affaire yooyu kii mbo bu leen toppatoo xool soo dox moom day fon ndaam ku may waxal danaan ma dindil nga dugal Pape ju mu naan dignité lu ma am dignité la ko gënal ma dugal ko rek pour enjoy mu foog ne dafa am ku may waxal mu ne ma dindil. waaw daf bëgg jàmm ko jàmm la bëgg ak salaam maanaam man jàmm ji ma bëgg nii yëpp tàppet bugguma ay bugguma problème ci moom laa ko jëlee tey loolu déggal boobu ma ko déggal ak loolu noonu moo ma may lii ma am tey ak barke baay dafa am solo sama papa damay yaakaar ni man rek la bëgg ci àdduna doomam yëpp man maa ko ci gënal ndax doomam yi tey man maay seen ta maay taawam waaye doomam yi kenn du ma laal tey ku ku ma ne xëy sax su ma ne ko papa diw rek danaan ma coupé bu ma coupé ci saasi la sama rakk yooyu di ñëw di ma baalo àq wala ñuy def ay gestes yoo xam ni dalay leen sama papa moo leen woo sëfal leen pour ñu ñëw wa dellu ginnaaw tey ma leen di gërëm nag ñoom suñ demaatoon beneen jamono yaay ji laay tànnaat tànnaat baay ji ma tànn nii moo tax tur bi ma tuddee sama papa daf dama da maanaam daf dama cee fier fier boo xam ne xaw fu mu toll moo tax waxuma ci sax ndax sama papa dama ñetti mbir moo tax ma ma ma tuddee ko doom ji ñetti mbir ñetti mbir moo tax ma tuddee ko sama euh, ma ma tuddee ko doom ji benn bi mooy bëgg bu ma bëgg ba ma xam ko ñaar mooy bëgg bi ma ko bëgg ba mu xam ko lool ñett mooy diine gi mu àndal kon tey kooku booy wër baay ba yem ci moom jàppal. sa digganteeg sa soxna. sama soxna moom awma fayam kooku moom. kooku moom wax naa ci moom bay bëgg a dee fi mu ne nii kooku moom aw ma fayam kooku dama ko bëgg kooku du dama ko yemalewul benn xale buy dox ci mbedd mi su ma man su may su ma gis ma ni yow gis nga ma boo ma gisul si oto may ambiance maa ngi kër Pape Diouf ma doo ma dégg ci détail jigéen yooyu parce que nekkuma ci yooyu caaxaanew moo moo tax da ngay gis ci xale jigéen yu bari yoo xam ne dama leen di romb ñu may gaaruwaale daa yéeg boppam ak daa kii xolal ñoo xam man sama j'aime ma femme xale bu jigéen bu yaakaar ni dama laa nopp Ibrahima Cissé ngi nii sama tailleur bi xam na li may wax suma ma ñawloo ma dama koy njëkk gis ñun doxuñ ci yooyu de gi moom fu mu jëm jabaram lay àndal majulaa te moom sama xarit la ne madame Cissé. Ibrahima Kaye bi Ibrahima Cissé. Ibrahima Ibrahima Kaye bi ñaari baat madame Cissé la madame Cissé yaa eh, Ibrahima nuyu daal maa ngi lay fay bu baax. tey dootul laaj sax sa diggante Ketchup. seet ànd. Mhm. lan moo ko conservé ba heure bii tey. muy ànd bu yàgg ba léegi tey te dara ñaawul. ginnaaw bi la bàyyi ko nuyoo. waaw maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di béggee ñëpp di kontaan ci ñëpp. di wax ne Ketchup moom li ma waxoon ci suba rek. laay confirmé waat kàddu yi benn la. man sama nit la te sama xarit la. te it ku ma nawloo la. ndax ni ko ni mu def ay waajuram parce que nit ni nga ko war a respecté bokk na ci comportement bi muy am envers ay parents te gis naa ne ku bëgg ay waajuram la te loolu dafa am solo moo tax ñu bëri dañoo réer mbir ci loolu ci moom donc mu nekk nit boo xamante ne nitu kese la moom foo ko fekk kafooree donc nit bu mel noonu jàmm rek lay am boo xoolee bisam bi tey ñi fi teew ñëpp nga war a xam ne kii vraiment nitu nit ñi la kilifa yëpp teewal ko te loolu yombul ak temps ni mu jafee fi mu ne nii donc loolu ñu war a xam ne nit ku baax la daal vraiment. boo amoon loo koy ñaax ci seen ànd yeen ñaar ak ci nit ñi nga xam ne tey bàyyi nañ si itte wuy si ko lan lay dool loo koy kàddu koy ñaaxaat. bu ma amoon lu ma koy. ñaax ci nit ñi nga xam ne xewle na ñëpp bàyyi si itte ñëw wuy si ko tey lan lay dool. dëgg bon li ma koy ñaax mooy mu gën a góorgóorlu rek te xam ne nit ñi. fii moom buñ la joxoñul di la sànni xeer wala ñuy wax ci yow lu ñaaw xamal ne tekk woo dara ci réew mi boo fi doonee dara rek ci ngay déggee lu ne surtout moom milieu bi mu nekk dafa xaw a sensible di nga dégg lu ne di nga gis léegi dañuy ànd ma moom maanaam ko booy booy siiw nga fu ñu tourné am kécëb indi kécëb noonu la amee ñoo xamante ne tamit noonu lañuy bañee du ñu bëgg mais moom muy sóoraale ñëpp rek tey xam ne nitu nit ñi la lu muy wax na ko xool lépp lu muy def na ko xool te xam ne nit ñi bëgg nañ ko te am na fu ñu ko teg donc muy sóoraale ñëpp bañ a waxati lenn luy gaañ kenn wala luy blessé kenn te gis naa ne incha allahu rabi li ci kanamam gëmatuma ko gis ci yenn affaire yu bari parce que xam na moom mooy kan. xam na moom mooy kan kàddu yooyu la Ibrahima Cissé génne di nitam di xaritam waa waa ñaari baat rek parce que ma <laughs> ñu bàyyi la ko présenté wu. waaw maa ngi lay nuyu baax Fadel. tribunal kontaan Boubou si junior yow suma naataangoo nga suma frère di la suivre. ngay def liggéey bu rafet. mais dama ne Boucher mii mënuñu wax si ñàkk bañ a wax si xewam ndax day nekk nit ku baax di ñëw di ñu fekk ci bërëb yi di ñu teral xam nga ñun artistes yi la ñuy àndal te ku ñu xam-xam ñoo ko artistes yi dañuy fekk ci biir soirée yi di ñu teral te nag wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee xam ne ni kii li muy def ci biti ci biir la ko njëkkee parce que bu yaayam toogee fii léegi Fadel wax ci moom li mu wax mu nekk wax ju rafet waxu yaay ak doom dañ ne diw baax na ñu ne mbokk yaa ko wax loolu olof Njaay wax man mani buñ nee diw baax na nañ ne ndax yaay jaa ko wax ku sa yaay di dund te gërëmul rek ku sa yaay di dund te gërëmoo rek wax dëgg yàlla kooku war nañ seetaan ay mbiram mais yaayam gërëm na jabaram gërëm ay doomam gërëm ay xaritam gërëm kon ki yàlla na jàmmam yàgg bonne nuit amiin jërëjëf mbokki internet yu Dakar Buzz euh, waaw Père Mbow ñaari baat moom tam xam nga tey yëfi buuse la mën ta ñàkk mais ñaari baat rek lu duuf ci nag wi xajul ci cin li waaye buñ ko buñu buñu bu ñu daggee sippi saaf teg fee génne ñëw mën nañoo def lépp ci biir li tax ma ñëw euh, di intervenir mooy dama xam ni nit loo mën a am ci àdduna ak koo mën a yaa baax dem nga ca jaww ja ñëw nga ci kii bi may nga mais comme baay waxul nday waxul man damay am jaaxle mais comme yaay toog na ni or yi yow a mbub mi yow a succès bi yow a bu ma àdduna yi wër yow bu ma amee ndam yow a ku amul ci yow yaakaar barki Seydina Mohamed du nit man sama yaay mi ngi ci téeméeri at ak juróom daan ànd ak alaaji Mansour moom Seydi Hadj Malick daan ànd ak alaaji Moussa Niang moom Seydi Hadj malik ànd ak alaaji Abdou te tey bu la téye woon nga dar sa bopp bi moo tax barke du ay caaxaan barke Seydi Aboubacar Sy Malick sama sëriñ principal mooy sama yaay bon la may laaj delluwaat nekk xale bu tuuti bon la may laaj paquet laa ciy jënd ñëw tegal ko toog ci wetam billahi di ko di ko ko saxal nga yaakaar ne man man man man may way juram pour wax la ne la way jur ay caaxaan kon boucher bis ni ki tey man takkal naa la étiquette boo xamante ni barki Seydi Aboubacar Sy képp ku ma déggati ngay wax ci yow loo xam naka sudul noonu la maa moom danañ ko diggaale ndax sa yaay ni da ngaa baax sa baay ni da baax jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz kàddu yooyu kàddu Père Mbaw la di ñaan daal li ci ëpp solo mooy bisam bi këccëb yàlla na xale bi dund ta barkeel yàlla na xale bi barkeel yàlla na xale bi barkeel yàlla ko yàlla fal cat moom li ma naan ko moom sa mooy sa galaaj moom sans nit ñi li nu wax boo ko xoolee rek ak comportement da xam nit ku baax la li ñuy ñaan mooy lim ñàkk ci bisam bi yàlla ko yàlla may lu ko remplacer ci ay xéewal yàlla gën koo yokk jàppale ko di ñaanal tam sunu jàmbaar ja Keba Kanté bëggoon naa dikk waaye xam naa ne xat na maa ngi lay siyaar Keba di gàdde bu nga def geste boo xam ne geste bu noobul la ma dugal benn cas social Keba nga woo ma ma ñëw nga wàññi téeméeri junni jox ma ko ne ma demal jox ko kon maa ngi ñaan li nga ñàkk ci social yàlla na ko yàlla fay nit ku baax nit ku riis këccëb la nag tey bisam foo kafree rek tey ñaan xale bi dund tabarkeel yàlla na ñëpp am jàmm këccëb maa ngi ñibbi de. waaw yow moom matal matal nga lépp yow sa moo rafet yow jàmm rek ngay am yow journaliste bu ma estimé nga ndax doo wax lu bon lu baax rek ngay wax doo yee fitna doo wax luy indi fitna réew mi warul am fitna moo tax su ma gisee nit ñi di bëgg a yee fitna dafa am ñu ci rax nag jamono ji Sénégal daa am ñu ko rax te ñooñu fokk yàlla weer leen incha allahu rabbi parce que ñu ngi bëgg a yàq Sénégal ndax fitna baaxul amul solo te fitna bu jógee xamoo fan lay teerijee ndax ñun ñëpp fi am yaay ak baay buñ ko fi amul ñu ngi am rakk ki mag suñ ko fi amul ñu ngi fi am ay mbokk kon nañuy sóoraale lu bari tey bañ di yee fitna Sénégal réewum jàmm la réewu teraanga lépp lu ñu metti nañu ko régler am l'amiable jéem koo gérer suñu biir te bañ indi benn fitna parce que xamuñu fitna. mu mel ne la nga yàlla suturaal na la ci ku bëgg jàmm ñëwal ci bis bi ci jàmm ku indiwul jàmm it ak sëriñ bi la kalaam ne la ak sëriñ bi. waaw man suñ tubaa laa sëf lépp ku ma bañ suñ tubaa laa la bàyyal. ku ma bëggit bàyyi naa la ak sëñ tubaa te payub sëñ tubaa amul kenn mënu ko téye moo tax lépp lu ma mébéri rek ci àddina sëñ tubaa laay jël jox ko lépp ndax sëñ tubaa yu sabal lépp tàmbali boo tàmbali sëriñ bi yeggale déggoo ma bisimilah sëñ tubaa rahmaani sëñ tubaa rahim yi sëñ tubaa alhamdulilahi sëñ tubaa sëñ tubaa jërëjëf sëñ tubaa jërëjëfati sëriñ tubaa xaarim rasul